salaamaaleykum waa jàppoo ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci recevoir bi ngeen recevoir collectif bi bu leen neexoon doo leen ko def parce que neexul ñu heure bii nii am na ñoo xam ne sax dañu bàyyi seen liggéey ñëw ndax pour juste rek xam lan mooy tànk collectif bi ñu bëri ñu ngi dégg collectif bi xamuñu nu mu demee moo tax ci lañ décidé ñun collectif bi ak ay conseil yu ñu jox ne ñu lii ngeen di xeex moo xeex bi sax bëgguma ko tudd li ngeen di waxtaanee am na fu mu yeggul fexaleen mu yegg foofu yëpp collectif yi dafa judd si benn but bu ko kenn dévier bu ko kenn yóbbu feneen but bi mooy lan terrain Jaraaf bu ko kenn privatiser kase pour l'instant loolu rek la collectif bi di dox booy dox dara xamoo ci dara da ngay seeti ay nit ci lañ décidé di dem ci ASC tey bu ñu ñëwoon fii li ñu gënoon bëgg mooy ñëw wax leen collectif bi judd na pour terrain bi ñu bañ ko jaay léegi yéen loo leen ci xam ngeen wax ñu ñu échanger ñu tënk di doxee noonu yàlla def na nag am na nu mu démarré ba kenn xamul sax lan moo ñu fi indi li ñu fi indi mooy dañ ñëwoon en tant que doomu Médina di laaj monsieur Paco Jackson Thiam président ASC Diapo ne ko dañuy dégg benn rumeur te du ñu nekk fi di la woo téléphone nga ñuy wax li dal suñu xel est-ce que doo ko def pour mbooloo mu ne ñu ay ca ci yéen la des hésité wul hésité nañu ñoo leen fekk ma fi may toog ak ñi nga xam ne ñooy xolu jàppoo ñoom lu jàppoo am ñu ñoo koy bokk lu jàppoo ñàkk ñun ñoo koy ñàkkandu mu leeral fa caméra yi ñëw bu ko neexoon li yëpp du am ñu ngi ko ciy remercier mu ñëw wax li ñu gën a soxla ñun ñëpp mooy li monsieur le maire Bamba Fall doon wax suñu nopp mooy terrain bi waxtaan naa ci ak waxtaan naa ci président ASC parce que bu waxtaanee ak président ASC mel na ni waxtaan nag cinquante pour cent population bi ok loolu kase du quartier bi

ak ku un million million dafa million a bëri ci si mais du dara dañuy million ci at bi bu heures temps nañ say de abay Paco di nga débrouiller nous nooy 1 say ñu ne un million yooyu bu papa ñu jël chaque match ñu ñu tarif bi defal ñu ko l'heure Paco day laal deux heures de temps deux heures de temps ñaar la 50 mille mardi lundi après mardi mu fay cinquante mille mercredi cinquante mille du ñaata parce que amul beneen dafa bëgg a beau jeu da ko fay entraîner du cent mille semaine bi du quatre du quatre cent mille trois mois ñaata la quatre cent et quelques mille sa waay trois mois day nekk ñaata un million yi un million ñaata deux cent sa waay ana un million yi la joxoon ci sa ñëw génnee la tawaxal la ko jox la ndàmpaay nanguwaat ko ci yow xel nanguwul loolu papa papa loolu xel nangu ko mu ngi waa mu ngi fay une heure de temps maanaam benn weer un million waa ji pour mu ñaari terrain bu ko xaajee cinquante mille cinquante mille l'heure ça lui fait cent mille francs calculer ko ci douze heures rek waxuma vingt quatre heures day yëngu ñu yëpp dañuy gérer foofu ci douze heures de temps ñaar la benn at benn jour bi laa wax ñaata la waaye loolu dafa garaaw Pago Pago lii ñun ñoo ko moom papa ñun bu fekkoon terrain bi amul ñun ñëpp duñu xamante waaw wala déet bokkuñu zone bu école Médine amul woon may jàngee maintenant cinq ngay jàngee maintenant quatre ñu bokk classe du ñu xamante. ñëw di parax paraxi non xoola man kilifa laa kenn du ma dugal ay Paco Jackson na leer non Paco Jackson du maire du conseiller du partenaire xam nga la la doomu Médina la am naa droit collectif bi demander à me recevoir à ak ma recevoir leen ma recevoir leen déjà benn. dama jàpp ni ñun Médina ñun ñep ñoo bokk le territoire est-ce que comprendre nga dafa am wax joo nga xam ne ko wax Jackson Cham, gisuma Kate. non dama bëgg dafa dafa poser question gisuma kayit signé wuma kayit fekkee wuma fu signé kayit dañu tag ben projet pour terrain Médina mani il est temps ñun terrain Médina ñu am terrain gazonné di football comme

sous préfet xam pas la barke Seydina Mohamed mi ngi DG et domaine dafa ni ma un nga de ko parce que Médina dafa terrain mais demal nga faire? ko différent yu fan ban fan comprendre man un rek mais le maire mais c'est légitime ce qu'on est. mu woo président ASC laaj leen seen avis ni dem leen bëgg subventionné mais kayit wanuñu ko wanuñu kayit mais pour lan mais non maire bi daf fekk fii ñun bi ñuy tudd defe naa ni ñun bi ñuy tudd ñu fi naay Thierry Henry ah ay di di nekk ay stade Bernabéu di di di jàppale Anelka yóbbu ko ci Sëñ Saliou non c'est avant tout ça il faut arrêter il faut que les gens sachent que on n'est pas n'importe qui comprendre nga yar y dafa un c'est le maire de la Médina quel que soit Alva, nagn ko jox teur bi mu yelol comprendre nga laaj ko ci ak taranga li les bëgg am mu tontuñu ci taranga wax ni li ci am su ci li ci am su arrangé wul wa Medina. mais wa Medina? am nañu droit hein dem ba am mais population moi je suis souveraineté de Bamba une élection population bee mais duñ manière ana a France ko wala wa Japon ko votal mais wa Médina donc ce qu'on a Médina mais nous, recevoir mais nous, nous nous, pour subventionner Nous, nous du il faut que ce soit clair nous, nous. man personnellement rien nous, am mais man Paco Jackson yëguma tinuma signewuma këyit par contre nag évolution projet bi maa ngi ci doon waxtaan ak maire bi xeex pour terrain bi am xeex naa pour terrain bi am mais terme contrat terrain bi yëguma gisuma tinuma Thierno Seydi gañ naa ko gis depuis euh, euh, xaw ma ban match Sénégal laa gëj a gis Thierno Seydi Bamba Fall gëj naa ko gis comprendre donc koy gis sax ku lay woon ay papier nga mën a xam sax butin terrain jaraaf depuis bi ma peetee dóor yi demi final daawaati géej laa fa géej xaw ma sax du terrain jaraaf mel. a lii sunu symbole la mooy xolu Médina gis nga bu ñuy dugg ci ay forme nan contrat contrat contrat bi dèjà tappale kese moo ci nekk mais bu ñu dugg noonu nañ dugg ci but bi mooy lii ñoo ko moom moom lañ bokk moom moo mën a boole waa Médina buñ ko tasee ku amatul loo fayee bokkatoo léegi waa côté bee dootuñu la xam maanaam léegi Médina day xaaju boo ñëwee Blaise Diagne fa la Médina boo jéggee fee ku am xaalis rek yaa fay dugg ku amul dool léegi ñun bu ñu dindee ñun suñu bopp ñun ñi am xaalis xale bu ndaw bi nga xam ne day jàng fubal fubal ñëpp xam nañ ne boo koy jàng waxoo fay boo commencé fay rek mooy yaa ngi privilège bàyyi jàng dem fee waaw parce que sama papa daf may fayal mooy fii la bëgg ma tekki bëggul ma jàng te ku bëgg a fubal boo jàngul doo tekki parce que un loolu ay exceptionnel la benn nit mooy bañ a jàng yàlla wësagoo mais gis nga jàng man de gëm naa ne sama jàng bu ñàkk sori moo tax soriwu ma ci fubal

bind nañ la yaa six mois ci ginnaaw sa waay sori na kenn xamul terrain jaraaf bi li ci biir lu ci nekk booy defaral nit lu baax sa waay da ko koy wan maquette da nga ko koy wan ne ko nii la bu ñu paree nii ngeen am mais sa yéen gis ngeen fi dara am ngeen maquette am ngeen appel d'offre bi kenn gis na ko kenn gisul dara dara détail yooyu duñ ci dugg mais bàyyi lii léppay ñëpp la mooy xolu Médina papa sa lii mooy xolu Médina papa mais toujours kenn duñu dévier encore une fois li ñuy xeex du ñun ndax fubalatuñu li ñuy xeex mooy dañuy xeex pour sunu quartier tuddatuma ASC sunu quartier xale dafay jàng football te du fay bu jàngee ci école bi pare dem mercredi soir mu dem def école de football dellu jàngi ay devoir am waajal boppam bu demee ba yàlla def jàng bi sori ñu gis ko bopp ci lañ koy dugal ay internat di ko fay muy jàng di football te taxul sax ngay jàng di football bu tekki ci football tekki ci football chance la chance nak dang koy baye nit di koy xëccoo wërsëg dañ koy xëccoo papa bama lim ñuy def ni lu toll ni quartier Médina quartier Médina ñu ne la mo jur face face am terrain municipal ñu ne la mo jur Grand Dakar Grand Dakar am ay terrain municipal ndax lan terrain dang koy créer am na espace yo xamne ñu koy utiliser pour lenen ay caaxaan mënon nañ ko def ay terrain terrain synthétique ñun jommuñu papa luy terrain synthétique ñu jàng football ci sous si xex bi diñu xoss lolo taxone ñu dëgër équipe nationale doon am booy Médina yu nekk yu dëgër mais est-ce que du synthétique bi sax moo ñu commencé yàqal mais jamono mooy dox jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom synthétique bi kenn bañu ko mais ñun am nañ luñ ko defaree papa buñ ko mënul defal ñu woo ay Paco Jackson yu bëree ngi fii ne leen daf leen collectif ngeen créé xaalis bu génn bu génnee ba li ngeen yem ngeen indil ma man seen papa man mère ngeen jox ma ma moo tali ñu defar Médina saay loolu mënul nekk ñaata nit a fi nekk saay loolu rek moo tax ñu ñëw képp ku xamoon boo ñu jegee ñu xamal la boo xamee indil ñu ñu boole lépp tënk dem ci moom toog waxtaanam toog waxtaan moom rek la ñuy sàkku on lui respecte man élément ma Fall la élection yi passé lu ne daj na ko ci mais ba mu jeexee jeex na parce que li ma objectif bi mooy ma falu waa ji doyoon na ma ba tey waxuma doy ma parce que xamaguma lii xew ëllëg mais pour mu wan ne ko kenn làquwul suñu na ay xale yu déterminé ñoo xam ne nag bonuñu parce que gars yi dañ gaaw a yàq dex quoi ne la ñii dañu bon wala kii saa kenn gënul fii kenn wallaahi kenn ku nekk xamante na fii mais loolu indi wuñu fi tey encore une fois nañu booloo gars yi nañu booloo dinañu jéem a tas mais ñu booloo te xam ne Médina rek moo ñu ñor